moom nag damay mbégte di ànd ak moom des fois nag ñu ñu ñu mbëkkante waaye sama grand la moo tax <laughs> euh, moom ñoo bokk fa ñu fa ñu jóge woon euh, yàlla di def bañ daje fi tey hmm. macha allah acca mu ngi noonu comme que Scoop Magazine nag dañuy waxtaanee actualité lépp lu ko soxal réew mi nag bëri na loo xamante ne nii jug na fi la ma koy njëkkee mooy moom sama mbokkam lébu la moo tax euh, fan yëpp ñuy dégg ab coow coow bi ñuy dégg mooy la xew ca Ngor hmm. ay ndaw yu jug di jàmmarloog ñi di force de l'ordre yi eh, fa nga dëkk daanaka eh, say mbokk la ñu itam mm-hmm. jàngat gi lan la ak ndax mën ngaa ñëwaat ci lu mu gën a yaatoo ci la xew foofu waaw euh, j'ai j'ai suivi en partie euh, coow li Ngor nag yàgg na bëri ay coow mm-hmm. euh, Dakar Cap Vert coow yu bëri souvent bu fay am suuf laa doon suuf la suuf la malheureusement Euh, c'est la région la plus enfin c'est la région qui accueille mhm. c'est la capital mm mais c'est la région la plus agressée mm -hmm. du pays mhm. euh, vu que enjeu yi ak intérêt yi lu ci bëri dafa sampu fi mhm. moo tax nguur nguuru nguuru Sénégal bu li mu war a njëkk a lijjanti mooy désengorger Dakar mooy fexe ba Dakar nit ñi am envie génn Dakar dem feneen. surtout ça ça doit être le travail bi nga xam ni je pense que sénégalais yu bëri yu nekk Dakar comprendre nañ ko léegi. Mhm. maintenant il s'agit de quoi toute la zone des Almadies Ngor Yoff Wakam. Mhm. c'est-à-dire que l'ouest de l'ouest comme on dit c'est la porte de l'Afrique. Mhm. c'est le nez de l'Afrique. li tax mu nekk enjeu géostratégique c'est un enjeu en fait Ngor tout ce qui est Almadies Ngor enjeu géo géostratégique la. et quand on le dit ça veut dire le monde entier ñun dañuy dund dëkk boo xam ni daanaka ñun fi lañu dëkk mais dafa mel ni dëkkuñu fi dafa mel ni dañ fay nekkandi parce que dafa am leneen wala ñeneen ñuy contrôler suñu dëkk bi ba nga xam ni lu bëri dañ ciy influencé aujourd'hui Ngor Wakaam Yoff Almadi zone la ba nga xam ni zone de pêcheur mais pêcheurs yooyu plus société bi di avancé ñoom ñàkk nañu possibilité financière mhm. pêcheurs yooyu la la taxoon ñu ñu ñu amoon notoriété à un moment donné moo doon la pêche qui fonctionnait bien qui marché mhm. léegi les gens peuvent aller en maire des jours et des jours duñu gis dara mhm. pourquoi parce que on a eu ay régime yu faillir bu mujj bi fi nekk nag moom ñëw jël coupe bi jël coupe bi dans un sens mooy signé ay accords yoo xam ni sa géej ci dafa mañ da ko tayle mel ni ko buggul dara mhm. ce qui est inadmissible c'est même impensable alors nga nga gis lu ni mel conséquences yi nag d'année en année d'année en année d'année en mhm. mu jur lan pêcheurs yooyu nga xam ni seen ay kër lañu yoroon yor mhm. seen suuf muy seen suuf suufus maam yor seen sanc dem ba jëmmi jamono ñu ci bëri bu ñu amatul les moyens de su de survivre et de vivre qu'est-ce qu'il faut bazarder seen kër yi jaay seen kër yi jaay boobu di jur di jur di jur di jur les communautés yi fa nekkoon commencé di di di changer di hmm. métamorphosé wu ñi nga xam ne ñoo doon dalalaate di yaatal commencé mu mel ni ñuy génne <laughs> c'est révoltant hmm. après day jur benn sentiment hmm. sentiment boobu nag day nekk frustration boo xam ne gars yi lu leen laal ñu jóg lu laal lu leen laal ñu jóg mu teer fan déggoon nañ fi coow waa wakaam yi euh, ak ma euh, Madiambal Diagne immeuble boobu muy tabax foofu récemment les gens ne sont pas d'accord, mais il toujours la force étatique qui impose ses, ses normes. Mm -hmm. Après, sur le cas de Ngor, c'est Brigade bu ñu war a tabax. Mhm. Euh, population yi amuñ ci benn problème d'accord nañ ci. mais en terme de process procédé na mbir ma war tëddee ak fa ñu war a dem. bu fekkee da nga da nga ñëw tey. ne ma bon affaire bi lii la ñu soxla fii la ñu ko war a def nangam nangam ñu accordé wu ci par exemple tant de mètres carrés ñu ne par exemple cent wala cent cinquante wala deux cent wala trois cent ñëw daal ne ah, fii kat sax état bee ko bëgg a gàddu lépp mais si population yi réagissent. ñu révolté wu. parce que xamalu tax nit ñi dañ leen yàgg nax ci bon fii dañ koy jël pour nangam ñu xëy suba gis ñu def ko ay bâtiment def ko ay appartement def ko ay leneen leen di ko jaay. man man man ci ci ci histoire bi sax dafa am loo xamante ne peut-être moom mooy gën a intéressé mooy wàllu suuf coowal suuf au-delà même de de de Ngor on a entendu récemment euh, ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy waa Fimela Palmarin di jooy suuf ne 5000 hectares yu ñu jël jox ko ñeneen. gis nañ tamit Tivaouane Peulh c'est le même cas finalement euh, ci douze dernière années yi liñ ci dégg ci coowal suuf dafa bëri lan la nguur gi dafa amul politique bu baax ngir mën a régler coowal suuf wala lan moo xew exactement. pour moi pour moi le scandale du siècle au Sénégal c'est le foncier mooy tey le Sénégalais pour mu am suuf c'est difficile. Mhm. l'étranger pour mu am suuf biir Sénégal c'est facile. oui c'est extraordinaire mais nañu xool un peu le seuil de la corruption. Mhm. fan la corruption toll au Sénégal nañ ko mm. xool tuuti xam nga tey dëkk dëkk réew mm-hmm. su fekkee ni que loolu nga wax yëpp palmarin mm-hmm. tuan politique yooyu yëpp ay ay conséquences la mais la cause cause wala les causes mm-hmm. mooy nous avons qui qui décide par rapport à cela ce sont des Sénégalais comme nous qui partent de station moindres et qui grandissent qui prennent le pas ñi nga xam ne dañuy dañuy jóge fu mel ni Baye Assane ñàkk tumuranke sonn lool di avancer ci seen liggéey di gis ne ay opportunité am na soo ñàkkee maandu ni Pa Assane dëng rek ngay def mhm. da ngay tourner gis opportunité benn cinq millions bu taxaw pour nga signer benn kayit wala pour nga def dara nga jël ko ñàkk maandu ni Baye Assane parce que voilà tu vas vivre tu vas chez toi on dit ah moom de temps bu baax la mhm. ak moom daal mu ngi toppatoo kër gi yaa ngi toppatoo kër gi nan mais ci naka ci naka mm-hmm. voilà le mal bu fekkee ni sur le plan sociologique et social toppatoo kër gi soi-disant nga ne man damay yem ci li xam moom la ma yàlla jox damay jubal mm-hmm. non sa kër ñu naan la moom da def fi dara voyez un peu mm-hmm. cette pression social là ki fekk que les gens parfois dañuy dugg ci lu ñu dul mën wala loo xam ne da leen di jural ay musiba maa bu kumba mu nekk nag conséquence bu mu ci réew mi mu jur ay problème loolu nag dafa am koo xam ne moo si am taxawaay moo nguur nguur mooy change donne bi de sorte que cette corruption là affligeante du egg benn niveau bi et pour cela il faut bien traiter les gens bien traiter les populations bien traiter les fonctionnaires bien traiter les agents qui travaillent faire de sorte que ñu baña nekk dans le qui vive dans le besoin ñu nekk dans le strict minimum bi nga xam ni dina leen permettre ñu dund décemment nekk ay nit yu digne c'est le travail de l'État si l'État faillit à ce niveau là mais affaire bi du dem et aujourd'hui lan la nit ñoon di def ay sénégalais lañu yoo xam ni tey ñaata yoon la kilifa di signé signature boo xam ni mu ngi ci yaakaar benn cinq pour cent benn 10 pour cent benn 15 pour cent këyit gi boo ko signé dinaa la rétrocéder 5 pour cent dinaa la defal nangam voilà c' est de la corruption léegi nag tey kilifa yi <laughs> am na si ñoo xam ne bu ñu meleen ni Baye Assane dëng qu' est ce qu' faut signé loo xam ni day dugg ci dëkk bi mais ñoom dinañ ci nekk milliardaire mën nga ñëw signé ay accords yoo xam ni saa yi ko si ko mais da nga ci tedd yow mais na nga cay teddee la ca askan bi di loroo mu jur li muy dund yëpp